C'est à l'image du pays. La corruption, la malgouvernance, le manque de sérieux. C'est en fait, c'est à l'image du pays. Il y a un accord, bon, c'est que peut-être, euh, xam nga Sénégal dafa am ñu bëri dégguñu tubaab nag. soo ko waxee noonu gars yi ne da nga réew da nga ñàkk tegin mais euh, ci wolof xaw ma nu ma koy waxee ci wolof mais man lu ma yóbbu woon la prostitution mais la prostitution du coup jigen nak bu taxaw ci mbedd bi di wut euh, di wut euh, dépense maa ngi jóglu ci jigen yi parce que jigéen a ma jur te jigéen a jur sama ay dom euh, tey góor yi ñu ngi ñu ngi prostitué am na ay góor yu nga xamné dañuy def lu nga xamné amul ben bu ko santané mais prostitution intellectuelle amna prostitution professionnelle amna prostitution c'est sous différentes formes parce que tay nga nek kilifa nga wat que tu vas servir et rendre le droit au nom du peuple nga gis na ni que li ni da nga foog ne ñu ñu ñu Khalifa Sall ñu foog da nga ne ñom lu ñu def dafa jadu. man luma ma won kasso, ba tay je n'enlève pas une seule virgule et je reviens à ce que j'ai dit il y a des magistrats qui sont indignes d'être des magistrats ceux qui ont jugé Khalifa Sall il constitue une insulte à la magistrature sénégalaise parce que dans cette magistrature il y a des hommes de refus et il y a des hommes de donc mais mais mais il se donne même un spectacle comment est-ce qu'un magistrat peut condamner Khalifa Sall sur la base de tout ce qu'on a vu et entendu lors du procès de Khalifa Sall Khalifa Sall est victime du plus grand complot politique de ce pays après Mamadou seulement pour avoir nourri une ambition de servir son pays. Mais c'est du n'importe quoi.